ak dëggal li ma la wax rek waaw ñun fii ci Médina moom couvre-feu bi nii lañ koy dundee Médina ngi nii ak couvre-feu ñu ñëw réew nit ñi di couvre-feu ñuy daa illa en plein couvre-feu non <laughs> mi dinaa ñoo réew. coot coot waaye xoolal lii rek. Sénégal ñoo réew xale yi ñoo réew laay laay pardel pardel pia pia amul daw de bu kenn daw bu kenn daw bu kenn daw parcelle a ngi nii de fii moom ay ragal dëkkuñu fi moom fii moom ay ragal dëkkuñu fi en direct de ouais, salaamaaleykum. Ça commence comme ça. Mais c'est du n'importe quoi en fait. Personne ne veut de ça. Kenn bëggul li. ministre de l'intérieur ministre de l'intérieur mooy jàll ngi instant yi nii ministre de l'intérieur moo nekk nii di doxante si biir Médina instant yi nii ministre Antoine Diop ñu ngi nii doxante si biir Médina ànd ak cortège bi ak gars yi yëpp yéen a gis. ah bon. donc voilà comme ni ma leen ko waxee woon Macky Sall pro Macky pro euh, présente couvre-feu saison 2 épisode numéro 1 à la Médina yéen a gis.